maa maa ngi leen di seeral rek sama nañu xam waxtu wu ne noo gu ma nooyi maa ngi ci leen di seeral ne maa ngi gën a yees sama jaayante ak sama sama jaayante ak sëriñ bi di leen di di gën a yees feddali sama laxasaay gi ba fas laxasaayoo fas yéene liggéey sëriñ bi lépp nag ma ànd koog ñoom te lépp itam lu ma ci wut ñoom laa ci jiital ci sama bopp maa ngi fas yéene nokki gu ma nokki maa ngi koy fas yéene jaayante koog jaayante koog sama sama diggante ak bi ak sama diggante ñoom ak lu ma mën ci àdduna lu mu mën a doon rek ma ànd ba fas yéene koo ànd ak ñoom rek ba faw loolu loolu mooy mooy mooy sama cant ak ñoom ma ko wax sax. loolu mënu ko wax sax ndax mënu ma ko wax sax sama lami. noonu la loolu laa ko noonu laa ko mën a firndeelee. waaye noonu yi rek laa ko mën a firndeelee. Euh, dellu si itam nag. dellu si itam nag. ci euh, cantuk boppam. cantuk boppam. muy sembu rëy wii nu bi. muy sembu rëy wii nu sembal sëriñ bi. te te te te te te mu bokkoon ca euh, la la la la la la ministre la mébétaloon boppam la ministre loon boppam mu bokk ci la nga xam ne moom la ministre loon boppam xaw ma sax nu ñu koy waxee waaye moom lu lu lu mu fàggaloon boppam la xaw ma sax nu ma koy waxee waaye lu mu fàggaloon boppam ba noppi la loolu moom danoo am tawfeex kenn loolu moom danoo am tawfeex dong yem ca yem ca nekkal ko ci nekkal ko ci euh, muy liggéey bu bi muy daara ji muy liggéey bu rëy bii di daara ji di université bi liggéey liggéey boobu. liggéey boobu. doy na waar lool ci man. nee na liggéey boobu doy na waar lool ci man. xalaat ji moom mënu ko ñàkk xalaat. xalaat ji moom mënu ko ñàkk xalaat. waaw da fas yéene ko rek. fas yéene fas yéene fas yéene cee liggéeyal sëriñ bi. fas yéene cee sëriñ bi. waaye nag. waaye nag. nii nii ñu ko àndeeg man. nii ñu ko àndeeg man. muy bokki sama bokki bopp yi. muy sama bokki bopp yi. di bokki taalibe yi. ak bokki taalibe yi. nii ñu ko àndeeg man. nii ñu ko àndeeg man. lu lu lu lu lu. bettuma sax ndax sax xam seen diggante ak sëriñ bi bettuma sax nag ndax xam seen diggante ñoom ak sëriñ bi waaye nag fekk naa ci ñoom lu kawe sama njort waaye nag fekk naa ci ñoom lu kawe nag sama njort loo xam ne eh, rëy na ci man lool loo xam ne rëy na ci man lool mënu ma koo xam nu ma nu ma leen di sante mënuma ma koo xam nu ma leen di sante te loolu alhamdulilahi rabbil alamin ñoom ñëpp ci marché te loolu alhamdulilahi rabbil alamin ñoom ñëpp ci marché ñëpp ci marché ànd ànd koog man ñëpp ci marché ànd koog man jiituwuma leen ci luy day ne dee dee ci be nee na leen ci lu day ne lii dee ci be noo bokk yéene ji noo bokk yéene ji xalaat bi bokk xalaat bi bokk pësteef bi bokk pësteef bi bokk jublu gi bokk jublu gi bokk jëf ji bokk jëf ji bokk bokk liggéey bi bokk liggéey kon ñooñu nañu xam ne maa ngi amel naa leen cant gu rëy rëy rëy ñooñu xam ne amel naa leen cant gu rëy dama dama dama dama damay ànd ak moom ba ci kanam borom liggéey bi. damay ànd ak ñoom ba ci kanam borom liggéey bi. ma ma ma ma ma ma sant leen fi kanam. ma sant leen fa kanamam. loolu mooy lay lay lay lay sedd sama xol. loolu yi mooy sedd sama xol. foofu rek laa ko jëmee foofu rek it laa ko jëmee. kon jërë ngeen jërë ngeen jëf. kon jërë ngeen jëf. Eh, maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax. maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax yéen yi ak talib yi.